Je dama koy parce que dafa un ci li nga euh, intelligence politiquement parce que man maire commune dañ pour ma liguer askan bi dañ fal jox ma budget at bu jot conseil municipal voter ma budget pour ma askan bi ah, def man formation bi jot donc tey jii quartier bu nekk ci biir commune bi def fa loo na visage commune bi objectif bi ñu am ñun mooy fii fin wu mandat bi am une commune sans sable nous nous sommes commune de fan Point Amitié c'est une commune résidentielle bi may a fait que na résidentielle boobu dañ na ma man dinaa delloo commune bi fa mu nekkoon ak savoir une commune résidentielle ci loolu laa nekk maa ngi ci tali sur fonds propre manque jardin espace vert manque maa ngi si écoles pavage école. yi fépp foo dugg si quartier yi maa ngi fay def waa léegi Fann Hock dañu am ay soxla wax c'est ko priorité ñu jóg si nag ne dañ koy dox bi khalaté projet bob al boulevard Bob, ñu né dañ koy défar mais 21e siècle dépassé nañu si canon à ciel ouvert c'est la des nous sommes au XXIe e siècle puisque état tëjul parce que mairie amul lu mu puisque état canal ñu ne nak ñun dañuy nous sommes xamné dina nit parce que sommes nit ñi dañ fay mais xet koy def pour ben xet xet xet canal bi sécurité parce que nous fa nekkoon ay nous avons nañu ñetteel bi nit ñi dañuy jël de di canal bi ndox bi du demati ko donc nous Nous fait faire mur dinañ sécurité dinañ de empêcher nit ñi canal mais également nous améliorer le cadre de vie avons mur bi peinture ko des artistes décorer tek ay banc tek ay bac à fleur def ko espace wifi wa Fann am sen espace détente le population bi la ñuy liggéeyal man dëgguma Fann du ma fa toog du ma fa du ma fa connecté wu du ma fa fanaan donc li may def def ma ko pour man je le fais pour les gens de Fann léegi nag am na ñoom lu leen naqari 1960 indépendance du Sénégal ba tey jii ñu toog Wafan Fann xam nañ ne réalisation mosul am si quartier boobu maa ko fa njëkk a def loolu mu naqari nag certains responsable ñu ne nag kii buñ ko bàyyee ak ay projet am ñun politiquement xamatuñu fu ñuy def ak lu ñuy wax nit ñi ñu activer nag ay démembrement de l'État pour ñu bloquer projet boobu ma yaakaar ne li président de la république wax bi ñu bi ñu koy investir si deuxième mandat bi dafa wax ne day ren ji day insister si hygiène publique d'insister insister le cadre de vie d'insister insister le changement de comportement des populations le président de la république wax dit. man fekk na ma ça. parce que que na man avant que nous koy wax man maa changer cadre de vie sama commune loolu may def que mu dë dëppoo ak moom li mu wax mais pas pourquoi pour des raisons politiques nous devons arrêter le projet parce que tout simplement maire waru ko réaliser parce que politiquement daf ñu baaxul pour nous. je pense que ce lu mesquin la bi loolu amé nak directeur ONAS moo ma envoyé lettre wax ma si lo xamantene dama jaxlé parce que mur clôture la ma wax man xaw ma la laay clôturer man mur de protection la def mais def moom mur de clôture parce que clôture yoo ma kanam ensuite mu defal ma ne de de la fosse la commencé ba léegi té yéen gis ngeen mur bi fa mu commencé beneen bi moy mom directeur ONAS responsable politique la gël tapé waaw balaa muy wax mur bi nga xam ne mur bi ay ay fan la fi am mais côté mu la corniche de la vous parce que ay ah, pourquoi loolu pourquoi loolu empêché ko ensuite fii de def mur fan la fa pour curé canal ba mu naan accès accès canal bi mur daf koy koy donc ngeen politique rek bugu nañ ko arrêté amuñu argument ñu andi ñu andi ñu andi man population bi ma pour ma liggéey leen. dama leen di lu ma si gobe gar du arrêté tay du suba parce que moom dëkku fi la responsabilité d'assurer la sécurité et le bien le bien-être de les des populations. man la incombe mais ñu ngi jox baaram tuuma ne Karim man du ma tudd turu kenn mais ku si nekk rek xam nga sa bopp parce que ñun fii ñu dëkk si commune bi koo ëpp ci mbokk mënoo ko jëw man du ma tudd turu kenn parce que bëgguma tooñ mais li ma mën a wax rek mooy xam naa ne lii c'est un dossier purement politique du leneen parce que kuy liggéey wax fa dëgg yàlla buñ la encouragé wul nañ la war a bàyyi nga liggéey parce que nag ñun maire dañ ñoo fal pour ñu liggéeyal askan bi naa nag